Ibrahima Amidou Dème nekkoon substitut du procureur général ci cour d'appel bu Ndakaaru ñu gën ko ràññee ci conseil supérieur de la magistrature ci bi mu démissionné mooy ganu Birama Thior ci émission tribune politique bi ñu amal talaata bu nekk ci seen si Sénégal set politique fii Sénégal dañoo jàppee ni rek naxe la nan ngay def ba ndax nit ñi ba ngu ba ba yéeg ci nguur euh, di leen continuer di leen nax di jëfandikoo alal dëkk bi. alal askan wi pour gën cee yàgg loolu lañ yàgg gis te loolu nag il faut mu jeex ci. waaw rafetul ñooñu nag yaa su fekkee yaakaar nañu ni jub nañu nit ñu jub ñi ñoo war a def politique.